mooy liggéeyu vétérinaire liggéey bu am solo la liggéey buy contribuer ci développement économique et social réew mi la parce que bu ñu xoolee bu ñu xayma woon tey li nga xam ne moom moo fi nekk ci wàllu jur li mu représenté ci ay milliards ñi nga xam ne ñoo ko maintenir ba jur amee ci Sénégal ba tey mu continuer di dox même bu fekkee ne amoon nañu fi ay période lu demee ne ay 2013 ay ay man maa ngi ko ay années 68 67 année yoo nga xam ni ñun gis nañu nag ñu koy jaayee ay 2000 francs mais bu ñu demee ba loola lépp ñu mën koo dépassé c'est parce que am na ay techniciens yu ci ànd ànd ko ak acteur yi ba tey jii Sénégal bokk ci réew yi nga xam ne wax dëgg yàlla kenn xeebuñu ci wàllu élevage même bu fekkente ne ëpp ñu fi jur aussi au niveau de de de l'UABIRA bi nga xam ne moom moo toog ci Union africaine di toppatoo lépp lu jëm ci élevage ak production animale wax dëgg yàlla am na fu ñu teg tey Sénégal ndax liggéey bi nga xam ni ñu ngi koy liggéey sur le terrain beneen bi mooy euh, monsieur Seck régulièrement ak mbargo ñooy ànd ak monsieur Seck bi nekk euh, ISRA di ak monsieur Thiongane di dem au niveau de l'organisation mondiale de la santé animale mais en tout cas Sénégal kenn xeebu ko foofa te buñ du xeebul nag du ministre bi du kenn yéen ñi nekk sur le terrain di liggéey bay am résultat yi nga xam ne moom la am ci la fan yee paase rek am na benn euh, raaya